Euh, tey dañu ñëw nag si benn sujet boo xamante ni dégg na Aziz Ndiaye wax ko si nga xamante ne mooy si wàllum làmb si nga xamante ne moom mooy euh, Balla Gaye et Tapha Tine dañ tegal tegal leen bant tegal leen lépp loo xamante ne tey ku si daan comme roi ngay doon mais ki nga xam mooy Modou Lo mooy le roi des arènes na nag wax ci bëri na gaa ngi koy sànni ay xeer euh, cool daal bëri na yow tey gis bi nga am ak ban ban jàng nga ci am wax ju mu wax na nga xamante ne tegal na ko Balla Gaye et Tapha Tine Tapha Tine nag Modou mais loolu gën ko parce que boo ñëwee roi des arènes te Modou Lo téye roi des arènes ba pare léegi mu bëgg a indiwaat beneen couronne roi des arènes kon xanaa Modou Lo bu daane ñaari couronne la loolu laa loolu koy posé question ko léegi benn Modou bu daane ñaari couronne lay daan ñaari couronne lay yore léegi tey bu Tapha Tine daane Modou léegi Modou eh, léegi Tapha Tine ban couronne lay am bu Aziz lay am wala couronne bu roi des arènes bi lay am. Modou boole ak Tapha Tine maam Modou euh, Tapha Tine ak ki ñooy ku si daan mu tegal leen couronne bi lay lay teg loolu fa la coow lu jël te te Modou Lo ma le roi des arènes. waaw léegi ban couronne lay teg moom laay laaj. couronne bi mooy question lañ ko laaj moom nañ parce que Modou Lo moo jël couronne bi mais roi des ni ñu koy defee ak léegi benn roi des arènes moo fi amoon bu njëkk mooy Manga kooku la couronne am la kii ràññee ne kii mooy roi des arènes. jamonoy Manga 2 ba léegi jamonoy Manga 2 ba léegi ni ñëpp amee roi des bi noonu la ko suñ seetloo. depuis Manga 2 ba léegi roi des arènes bu jaar yoon amu fi ni ko ñëpp amee waa Manga 2 ci Manga 2 la ko CNG organisé woon à part Manga 2 bi dañuy def rek même bu la six personnes daanee boo daanee ki fi mën yaay roi des arènes comme noonu la ko ñëpp amee nag ba Modou Lo amee ko noonu nañ ko bàyyi ak roi des arènes c' est ça le problème loolu mooy. waaw mais est-ce que dafa teg croix croix la teg. léegi gars yi ñu bëri ñu ngi koy clash naan couronne couronne bi mën na nekk ci kaw Modou Lo bokk ci couronne roi des mën na nekk ci kaw Modou Lo bokk ci Modou Lo nangu ñu organiser ko neneen bu mekkut ak ni ko daan defee mais fii ñuy waxee nii Modou Lo mooy roi ndax nag ay moromam yëpp noonu lañu ñu amee roi kon mooy roi. ah ngoy naxarlu rek. ah parce que Aziz Ndiaye li mu def noonu moom Modou Lo gaa du sama mbër de. man ànduma si quoi. wax dëgg yàlla parce que Modou dafa xeex ba jël roi am dafa xeex ba am lim am ñi ñëw tëgg benn combat tegal leen kuréen si ñoom ñaar man ànduma si dëgg yàlla parce que loolu suñ ko defee Modou Lo roi am bi du du am sens maanaam ànduma si dara mais nag Aziz moom loolu moom li mu wax noonu moom ñëpp ñëpp xam nañ ne Balla Gaye mooy mbërëm waaw sama gis-gis sama gis ne li Balla Gaye nekk mbërëm moo tax mu doxalee noonu mais Modou Lo yelloo pas ñuy def loolu man ànduma si. waaw en fait euh, Aziz Ndiaye dafa am xalaatam ak gis-gisam wax quoi mais en tant que man su ma gis-gis quoi comprendre nga mooy que ni Modou Lo moom mooy le roi des arènes comme le roi de tous les lutteurs képp kuy takk ngemb Modou Lo mooy sa roi. donc nag loolu moom kenn waxatu ko xëy na bu fekkente ni nag dafa am xalaat bu baax wala initiative beneen boo xamante ne ni n'empêche que ni Modou mooy roi des arènes mais loolu tamit xëy na tamit mun na nekk yokkute ci làmb ñu gisaatee ni noonu tamit parce que xam nga nit ki mam bu mu wax benn affaire rek ñu jàppee ko côté négativement quoi nañ de jàppee côté positivement nekk ni loolu mu def wala loolu mu bëgg a def tamit nekkul loo xamante ne lu bon la mais n'empêche que ni tamit liñ gaa yëpp war a xam mooy Modou Lo moom c'est des arènes loolu kenn contesté tu ko loolu bindal teg na le mais lee nag moom leneen la léegi nag ça dépend ci ñoom nañ waxtaan ak CNG bi waxtaan ak ministre sport bi léegi bu dee loolu noonu initiative boobu war na mën a nekk ñu def ko parce que loolu tamit rek yokkute làmb la rek waa làmb moom day yokk rek di dem ko quoi. loolu de dama ko dégg mais ba ma ko déggee dama ne ah làmb de am na lu mu musul am ndax man ba ma dalee xam làmb ba léegi depuis ci Manga 2 laa commencé xam roi des arènes waaw kër Manga 2 laa gisee roi des arènes mu tàmbale te. comme niñ ko joxee Modou Lo noonu lañ ko daan tëggee mooy dañuy xool ki ko yor ki ko daan mooy nekk roi bi mais moom tamit bu de fekkee daa bëgg indi loolu amaane day jaxase affaire yi man de bu ma soñoon bu doon roi des arènes la ñuy wax rek loo xamante ne gouvernement moo koy tëgg mbër yi ci tolloo doole mooy poids lourd yeeg yëpp muy amul xale amul mag ku am licence ñu teg ko ñu def ko tournoi ñu koy bëre ba mu jeex ku nanguwul bokk yow maanaam foofu ku daan ba fin yow yaay roi des arènes mais ñun niñ ko xamee woon fi mu toll nii Modou moo ko yor maam moom bu indee leneen rek genre soit xaw ma lu ci jublu waaw empereur empereur xaw ma empereur waaw loolu maa ngi koy doo ko dégg ci làmb te tamit li muy def nii munul nekk wax dëgg fa yàlla. waaw xam nga tey jii daa loo xamante ne maam dëgëre boobu buy jug na ko si Aziz Ndiaye la war a jugee Aziz Ndiaye sama grand sama xarit la sama lépp la ndax maam moom faas woon. dama doon am combat mu yëkkati xaalis gu bari di ko def si man su ma daanee boo ko fekkee kaw tribune da yëkkati xaalis bari si xal ma nekk sama grand yàgg dem ak man yàgg dikkalante ak man man aw ma maanaam mënu koo mënu ma teg benn kàddu bu ñaaw ci moom quoi mais nag bu fekkee wàllum krong la maanaam tey jii booy seet roi des arènes bu gën a légal roi des arènes bu gën a légal si këri àddina ba lamb dalee am ba léegi muy roi des bu gën a légal Balla Gaye la Modou Balla Gaye Modou Lo mooy roi des arènes gën a légal parce que tey Balla Gaye moo fi nekk koo xamante ne nii ak Modou Lo ñoo fi nekk koo xamante ni dañoo daan seen morom ba ci kaw wàcc daan seen morom ba jël roi bi man su ma neexee ne Tyson roi am da koo for parce que dafa ñëw daan ñetti pas jël des arènes su ma neexee ne Yékini dafa for roi des arènes daa bàyyi ba Bombardier kii mu daan ko dem jël roi des arènes ay ñetti mbër la ñu daan nekk roi des arènes mais xoolal Modou Lo ci mbapat la commencé. di daan di daan di daan di daan di daan di daan di daan ba ci kaw retourné waat jilaat ay raxam di leen daan kon dafa kooku dafa maanaam roi des bi da koy yelloo maanaam nekkul lu mu for quoi roi des bu mu liggéey la da ko liggéey da ko ñàkk da ko ñàkk kon kenn mënu ko jëlee si moom benn affaire mun naa ko d'accord ñu ne léegi roi bi kat mu ngi si Modou Lo léegi dañuy dajale mbër yi bu ñu dajalee mbër yi ku ci daan maanaam bu ñu dajalee mbër ku ci daan ba yegg ci maam ku ci ku jël tournoi bi foofu ñu boole laag Modou nga bëre boo ko daanee ñu boobaa ñu xam na yaay roi bi mais maanaam fu mu doon nii roi roi roi roi yàlla dogal na ni muy parcelle. su fekkee nag Modou bëgg na def leneen lu bokkut ak li ay moromam defoon am na ci droit ñëw ne ah, nii ma gisee ñuy joxalee roi bi suñ ko bëggee kon ne doxalee roi bi dina am koo xam ne nii ñëpp mën nañ koo daan mu fekk ma fi man daan ma nekk te demeewul noonu parce que léegi gis nañ sax làmb dafa xaw a changé ki ëpp supporter rek chaque jour day am combat kon ki am supporter dëgg dëgg dëgg dëgg suba mën nañoo proposer lu ko booleek Modou su fekkee Modou bëgg na ko changé nag Modou Lo mun naa doxal beneen done ne ah CNG dañu buggoon ñu organiser ko trois de arènes bi kat man dinaa ci bokk ci kaw ñu def trois bi ci temps de mbër yi. ku ko ci ku ci jël ku ku ci jël tournoi bi ma dajeek man soo ma daanee yow yaay nekk roi normal loolu Modou loo mun na mais bu fekkee loolu amut loolu roi roi bi Aziz Ndiaye wax mënut a nekk roi bu mën a nekk Modou Lo da ciy bokk. gis ay ceinture gis na fi gars yi teg yeneen ak yeneen. mais moom moom bi rek comme xam nga catch yi gars yi ay ceinture ceinture ay poids lourd poids lourd gars yi di dem di dem donc nag loolu tamit bu dee luy continuer la parce que tamit waxuñ la nga ñëw def ko rek pour. xalaata def benn affaire boo xamante ni tamit du idée boo xam ne buy continuer la mais pas loo xamante ne ni bu dee du du continuer la juste da am yow sa intérêt bopp boo ci teg loolu waxuñ ko mais bu dee loo xam ne day développer làmb yóbbu làmb ci yeneen jéego loolu initiative bu nice la. ñun suivre nañu làmb depuis démb mais moom li mu wax nii moom maa ngi koy doog a gis ci làmb su ko defee rek waaw waa Modou Lo yi dañ koy gisee neneen ndax ñoom ñooy roi soo fi naree teg leneen moom ah soit da nga bëgg a lëbëjee carte gi rek. mais làmb moom wax dëgg fa yàlla musu lii musu cee am muy Balla Gaye muy tafaatin Tine instant yi maanaam faaw dañuy bëreeg Modou Lo daan ko pour mën a jël roi bi foofu mais leneen lu ñu am ñoom seen trophée bopp maa maam ki leen tëggal làmb moo leen ko jox am seen trophée booku quoi. trophée ko bañ. trophée kenn du ko bañ. mais bul wax lu jéggi roi ndax benn roi moo fi am actuellement muy Modou Lo waaw nañ ko ko nangul rek. te yàlla tax amaana nag ñoom xam nga dañuy business làmb affaire de mbër bëleeg promoteur bi waa ñoom ñooy xool niñ koy defee mais man roi des arènes bu dëgg bu ñuy wax faaw ñu boole boole ci ñoom talfaak mbër yu ndaw yi ñëpp ku ci tolloo doole ñu dem même bu dee dañuy jox roi bi maam benn luur jox ko benn lese ñëpp mën cee bokk mais munoo boole benn loo rek génnee fa roi Modou Lo moo ko nekk actuellement mais tey jii bu doom bu dëggu dëggu dëggu bi la dañuy boole booy yëpp ñëpp bëri ci ku ci am sens doon roi bi mais léegi dommage roi des arènes léegi voilà ku daal léegi ñu ne roi des arènes te un roi des arènes benn laa jot a xam mooy Manga de kooku moo amoon couronne bi taxoon ñu ne roi des arènes mais léegi comme ku daan rek laay roi des arènes léegi Modou Lô nangu nañ moo yore couronne roi des arènes nangu nañ ko léegi couronne léegi Aziz buy teg ban couronne lay teg benn couronne Modou Lô jël jël couronne am ko teg ko mu doon benn couronne wala moom day jël couronne am teg ko ne mu mu bëre couronne loolu tamit jar naa question parce que Modou Lo tey bu nekkee moo daan benn am na couronne am mooy roi des arènes léegi couronne bi Aziz teg kon couronne lan lay doon non kon roi des arènes parce que Aziz dafa tànn ñoo xam ne ni ñooy quelque mu ne ñii ku si daan roi des arènes jël bant ak lépp teg non yooyu xel na ma ko. li ci war a nekk mooy Aziz Ndiaye li mu wax mën na nekk mais kaw moom mu organiser tournoi boo xam ne ponkal yëpp dañ ciy nekk ki koy jël mooy dajee Modou Lo bu daanee Modou Lo nekk loolu day possible mais Modou Lo sax du bokk ci tournoi boobu parce que il roi ba pare. mun na nag dajale gars yi. Kanta sax su ko neexee ñoom Eumeu Sène ñoom Balla Gaye ñoom ñoom ba ci ñoom Tapha Tine ponkal yu yëpp mun na leen organiser dajale leen ñëpp kay. ki ciy génnee nag dajeeg Modou Lo bu daanee Modou Lo roi bu kenn dul nettali la. mais maanaam ci kan la ko teg pour la mu koy teg ci Tapha Tine Balla Gaye mais maam bu Aziz Ndiaye bu waxee loolu maanaam man damay jàpp ni maam bëgguma wax dara lu ñaaw mais damay jàpp kon am na leen lu mu jàppal Modou loo parce que bu doon dara maam ba ko Balla Gaye nekkee la moo tax deful loolu ba kay gi nekkee la moo tax deful loolu mais am na la jël boo xam ne boo demee ba koy def damay jàpp ni am na lu nekk si biir quoi mais roi moom bu ñu wax dëgg yàlla te yàlla tax bu ñu nee roi roi roi Modou Lo roi bu dee wax dëgg te yàlla fekkee wuñ bu manga nag fekkee wuñ bu kenn mais bu dee bu Tyson la baaxul bu dee bu Yékini la baaxul bu dee bu Bombardier la baaxul bu dee bu Eumeu Sène la baaxul xoolal bu Eumeu Sène tey jii Eumeu Sène yow mënoo am onze défaites neuf victoire nekk roi des arènes loolu sa waay yanul maanaam na nga rek xool ma lay wax rek nga am onze défaites am neuf victoire nekk roi des arènes muy Eumeu Sène Tyson nga ñëw daan quatre combats quatre komba te ay paa nga fekk daan leen nekk roi des arènes Balla Gaye ba mu ñëwee dafa daan ay moromam daan ay magam dem ba ci Yékini tegi ko teg fële kon kooku roi la ngeen mun ko cee jëlee roi bu leer la am ah Yékini man man sama côté man man su ma nekkoon CNG Yékini du roi parce que daanu fi ku wax la jàpp di leen daan Tyson Bombardier Baboy Tyson Bombardier Baboy loolu mu nga bëgg see nekk roi mais léegi xoolal carrière Modou Lo xoolal carrière Modou Lo da nga maam ci Modou ay ci Modou Lo maam bu muy bëri si suuf nga koy commencé ba ci kaw ba pare ñu la Modou Lo mi kat deux défaites la am kooku roi am légal la wala légalu loolu roi maam mu ne roi d'office boo xoolee sax Balla sama gaañ la sama xarit la mais boo xoolee roi Modou Lo moo gën a légal bu te man ma doon joxe roi ñaar yooyu laa koy joxe Balla Gaye la wala Modou Lo. maa ngi waxaat maam li ministre bi wax ci làmb ji man damay wax ne dëgg la mooy maanaam minwi maam si yi jeex ndax grand làmb ji ni muy yàq instant yi dafa bëri te mbër yi kenn waxu leen dëgg mbër yi ñoo war a wax ak booy ndax booy dañ leen fan mais boo waxee waxu bandi grand booy di la bëgg man dama dund làmb dama doon bëri. ma man sude damay supporter mbeur dama koy fan lu mu wax lol lay wax lu def lol lay def te boy nañuy wax ne manam ñom lamb ji wa lamb nañuy wax ne ñom manam mandat de dépôt yi mbeur yi di tuddu moy ku ñàkk jom mo koy am maam mandat de dépôt mbeur waru ko wax di ndamo ci télé ndax da am xalé yu ko fan après ñom dinañ dem découvrir lan moy mandat dépôt te lolou manam suñ ko waxalee yalla rek mandat de dépôt kuñ ko def rek da nga ñàkk jom so ko defee quatre fois mooy ñàkk nga jom quatre fois li waral banditisme agression ci làmb ji mbëri ñoo ko gën a yokk waxuñu booy dëgg après xaalis bi seen poche la dem boy bu ci gaañu suba ñoo lay romb ak 4-4 benn yoon laa mës dégg ci làmb mbër wax ko muy Papa Sow contre tonnerre signature bi mune ne benn xale bu mu jaral maanaam ngay rayante ci làmb ndax ñun après ñooy lekk suñu xaalis léegi foo gis banditisme mu ci milieu làmb daan nga daan nga toog géew Modou Lo nekk fa Balla Gaye nekk fa Sa Kajoor nekk fa Matraez nekk fa hmm? Dolf nekk fa maam ñoom maam biram nekk fa maanaam benn géew ñu bëre ba 4 heures du doo dégg ku dóorante léegi nag ku bëgg a teg banditisme rek làmb ngay ñëw grand loolu war nañ ci wax mbëri nañu xool ni ñuy communiquer. yow yow yow loolu dama xamul tax ma lay dagg. da ngay ñëw plateau ñu toog ñu wax ko.